bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yow aji laaj ji ñu ngi lay siyaare di la delloo njukkal di nuyu waa daara Hizbut Tarqiyyah yëpp di ci jiital sëñ Mouhamadou taxa góor yàlla Mor Saadix di nuyu it soppee xarit yi wóolër yëpp dëgg la ñoom day maa ngi leen tomm tàmbalee topp 1976 1976 laa leen tàmbalee na topp euh, di gisit ñuy ñëw ci Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mu di leen jàngaloo par ñetti kuréel jës bu mawaay bu mu xaddimaat buñ ko jàngit day toog yor kaamil bi toog ci piliyaan bu mel ni bii ma toog jublu penku loolu seere naa ko fa ba ca toppit ñu bari ñu mu eggee loon ay soxna nga xam ne Euh, kilifa yu bari seeni doom boole woon na leen ci di leen ganale ci kër gi ba mu egg kenn ku nekk mu jox la sa soxna nga yóbbu loolu fi la ma fekk la ma ci gën a sama soxna mooy jamono yu ñu masaa ñëw màggal booba li tàmbalee ci soowu jumaa ji jàpp kër sëñ Ndaam at jëm kër sëñ Mbàkke Madina wuti kër gu mag loolu lépp ay passion la daa doon passion yi buñ passionné ba noppi bu ñuy demee fa la ñuy bàyyi ñax ma fa la ñuy bàyyi sobe sa fa la ñuy bàyyi wettiti yépp su ko defee ñoom si jëmbi bopp ñu ñëw yor ay peel carré di gas ba mu xóot ñu sott ci sobe si ak mbalit mi maase la ko at ba mu jekk pompe pénc mi ba mu egg weñ du fi naaw foofa ma topp leen ci la ca toppaat doon nañ def exposition yoo xam ne yi fi leen sëñ Abdoulaye joxoon ginnaaw bi nga xamee ne am nañu daluwaay fii ci wetu kër sëñ euh, ci ci ci ci boo weesoo kër sëñ bu sa tuuti foofu amoon nañ fi daluwaay sëñ Sidi Ndour moo fa daan ne ba nga xamee ne togg gi ñu ngi ko daa defee kër sëñ Baara moom Cheikh Cheikhul Khadim booba ak daqaar moo nekk foofu ci koñ bi léegi bu ñu ñëwee exposition bi doon jëkk di def ca ma xam ko man ca ràññ ko fii jullikaay it bi lañ ko daa def ba yàgg mu dajee kum nawet si laa jox leen daare kamil ñu nekk foofu ci werandaaw yi di ko fi teg may gis sëñ muy expliqué moo gaa yi mu àndal waaye nag boobu taxut sëñ aatu moom nu xamante xam naa ko nag waaye boobu ma moom nii dem di dem di dem di dem di dem ma di leen topp ñuy jàng njàng moo xëy mii kenn mënu la ko wax ndax neex ñuy roy waa kër sëñ Masamba di jël daaji mag ñi ndax bu jëkkoon bu ak màggal ma saa am baay Makhtar Mbaye Baye Cheikh Lo Baye Cheikh Xataaba sëñ Mbaye Aan si si si si si Jëmooy Jóob ñooñu booba ñoo daa jàng ak Baye laay Ñang ñu di leen seetaan ak sëñ Mbaye Aan ñu di leen seetaan waaye nag amaa nag màggal ñëw nag ñu def kuréel nag di jàng di yëkkati ak di joxe aw ñam ah loolu man sama diggante sama borom ci ñoom laa ko jëkke gis ñu tam ku ko def ñoom nga koy roy màggal ñëw tam xarit màggalu sëñ Cheikh Mbacké nga tàmmali ko caa waajal ci ay bernde ay baas ba màggal gu mag gi ñëw ci ñoom laa ko jëkke gise te Touba maa ngi sama juróom benn fukki juróom ci Touba ci ñoom laa ko jëkk gise ku koy roy ci ñoom nga ko roy te sallallahu alayhi wa sallam nee na képp kuy tàmbali lu baax wala nga di ko def ko la ca roy am nga tuyaaba loolu yàgg naa koo wax loolu ma xam ko ci ñoom teraa nga boo demee ñu teral la ba nga rus cay daara wax dëgg yàlla ci ñoom laa ko njëkk gis la ca topp it mooy ndaje moo xëye da ngay xàjjale yu góor ñi ak jigéen ñi bu jëkkoon jàng yu ma saa am góor ñi jigéen ñëpp ay jaxasoo di wër di lëfi ñoom duñ ko def ñoom ñoo jëkk di xaajale góor ñi jigéen ñi ni ko lislaam na ko xam nga siñaatu dafa doxalu taalibe doxal lislaam te ñi mu àndal ñu bokk pas-pas mu amu fit lool ngir jëm yi Sëñ Tuubaa xam ne Sëñ Tuubaa loo ko songewu fit rek danga nga jàll nee na ma ba ma ne ko Mbàkke mu ne ma bu oto départ am feer yor ay bomb ma war a liggéey Sëñ Tuubaa fii mu wut si ma lu toll ne xef duma ko def ma ne ko ah yow de sëñ bi dégg nga yow de sëñ gëm gi naqari naa naqari naa yegg de mu ne ma ne man foofu laa toll ba de ma ne ko mbàkke mu ne ma yaakaar naa ne man euh, daara koñ bu ma geesu daje sëñ jamono bu ne maa ngi bàyyi xel sëñ Tuubaa ma ne ko ah loolu de moom am na solo lool waaye sëñ Aatu ah yëf met na de mu ne ma maay jëkk a tëdd maay jëkk a yow daara ji maay jëkk a tëdd maay jëkk a yow nelaw bu ma yeboo ne li ma ci mos bëriwul loolu it seere naa ko ci moom mu sëñ Abdoulaye téye na ko weer wax gaa yu jëkkee ne leen sëñ aatu mi dama ko doon suudeeg sëñ Touba waaw kon nag sëñ Abdoulaye moo ko suudeeg sëñ Touba mu doon jëmm ju tabe di koo xam ne kii du fakk nit mukk man de fu ma séenee ci otoom taxaw su yëgee ne maa ngi wax mu ne ma jàll si bu yëgul dong la ma mujj defal teraanga joo xam ne ji ju am solo la defal ma ay tiraanga ba dema tooñ sax naan ma boo dee wàllu yi dinaa ko xam ma ne ko ndax lan mu ne ma balaa balaa jant so na am 4 millions yu dem ca eh, ca ca kaagu téere ma ne ko du ma wàllu du ma woyu waaye boole naa la Sëñ Tuubaa tay bi Sëñ Tuubaa la mu ne waaw góor waaw Sëñ Tuubaa rek la ba boole ko dara jëpp jikko ju rafet du ñuy wax ci waaju baax rek yor na ko waaye nag barikalla maamam Sëñ mu saaka noonu la meloon bokk na ci ñi maam Cheikh Rafal kañoon lool waaw ne ko boole naa la ak sëñ Issa yow sëñ Issa Dieng la attan waaw mu doon jëmm joo xam ne ji barikalla fi mu jógee dafa rafet dafa baax moom way juram sëñ Ibrahima jaañ ngaay la dëkkoon Alaaji Sëriñ Jéy moo ma nettali Badar nee na moo ak sëñ Mor Asta ñoo bokkoon Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké sëñ Modou Moussa Moussa ñëw Badar bu fi jógee ngaay lay dem gane ji sëñ Ibrahima eh, dem gana ji sëñ Ibrahima Diagne bu ko ganalee ak Cheikh Abdou Lahad ba ngan yi jeex lu fa lu fa des ci ngan gi da koy boole jox ko ko kon kii dafa doon ak taalibe da koo nàmp maa ngi siyaare bu baax magam ju baax yi di soxna Khady jaañ moom it ku murit moom it sëñ Abdou Lahad gërëm na ko ngërëm loo xëyee amul amul ab kon nag